ay partenaire am Saloum Dieda World Clinique Marie ak Almadina International Travel ñoo may seen émission wérgu yaram les mercredis de docteur Konaté. asalaamaaleykum euh, mbokku auditeurs yi auditeur waa Sene Info euh, tey euh, ñu ngi dellusiwaat si cadre. de mercredis du docteur Konaté tey pour wax leen benn état euh, du feebar carrément du feebar carrément wante mun na feebar te mun na indi tamit ay feebar parce que euh, li ma leen di waaje wax ni cousin wu jabet la cousin wu cholestérol la Euh, cousin wu hyperlipidémie la donc euh, cousin wu tamit euh, insuffisance rénale ak insuffisance cardiaque la donc ñoom ñëpp ay cousin nañu bu si dugg rek mun na xëcc beneen bi tey moom dañuy wax waxu obésité obésité moom mooy am donc yaram ñoo xam ne seen yaram dafa xaw a ëpp dafa xaw a jéggi dayoo euh, lan moo koy andi lii di ko andi lu simple euh, benn accumulation c'est-à-dire am na luy graisse boo xam ne bu bare moom mooy euh, dajaloo donc si yaram bi te li nga xam ne moom moo leen di moom la leen di andil donc moom mooy ay. feebar rek wax naa leen ko ah ba wax leen eh, ñen ñooy ay eh, mbokkam donc eh, li koy andi li nga xam ne lu ci gën a bare moom mooy lekk bu bon li si gën a bare lekk bu bon ba noppi nit ñi duñu def ay activité yi nga xam ne moom mooy lakk graisse bi donc bi nga xam ne moom mooy nekk euh, mooy nekk donc euh, si yaram bi donc dañuy lekk rek ne faax comme suñu di diriyanke yu bëri xam nga fii euh, Sénégal surtout Sénégal surtout suñ la newul ne jigéen ñu jigéen ñi ah suñ la neewul ne ne da nga am yaram da nga xaw a diriyanke rek ñoom duñu kontaan te war nañu jàpp ne que ne léegi. Euh, am na dëkk yoo xam ne tax ñoom pour ñoom léegi loolu feebar la ah nga xaw a am yaram nii euh, am graisse ak yooyu euh, ñoo dëkk yooyu dañ koy considérer comme étant une maladie donc dañ koy considérer comme feebar mais suñu dëkk yi fii au Sénégal par exemple balaa nit ki di kontaan rek ñu ne la da nga di réanke Euh, balaa muy jaaxle ah ñoom te foofu nag nañu war a kontaan balaa muy jaaxle ñu ne ko ah yow da ngaa jeex dangaa jeex rek nga gis leen ñu commencé tiit commencé jaaxle alors que euh, jeexaay boobu su su jéggiwul dayoo jeexaay bi ah su jéggiwul dayoo bu alors que jeexaay boobu bu fekkee yem na jeexaay boobu moom mooy donc euh, seen jàmm jeexaay boobu moom mooy. seen euh, weer gi yaram li nga xam ne nag euh, moom mooy euh, manifestation bi si obésité ah mooy am yaram nit ku nekk mun na ko seetal boppam ah mun nit ku nekk mun na ko seetal boppam soo ñëwee nga jéem a peser sa bopp ñu jox la nga am benn balance wala nga dugg fenn léegi fii dëkk bi foo dugg rek pharmacie boo dugg am na balance cabinet médical bu la jegee boo dugg rek mun nañ la fa donc ñu jël sa poids ñu gis ne que ne sa poids par rapport ak sa âge par rapport euh, ak euh, sa sex par rapport ak sa taille dañuy gis ne que ne euh, vraiment yow sa poids bi dafa ëpp dafa xaw a jéggi dayoo ñun ci suñu seet ak suñu seetlu suñu jargon dañuy wax. da am benn IMC e moom mooy indice de masse corporelle dangay am benn IMC e boo xam ne dafay égal wala dafay supérieur à 30 dafay ëpp fanweer donc si ñun soo amee IMC e mooy indice de masse corporelle boo xam ne dafa euh, romb fanweer rek bu boobaa mun nañ la considérer comme euh, koo xam ne yaram bi dafa xaw a euh, jéggi dayoo léegi yaram bi su jéggi dayoo Euh, mun na la andil euh, jéye yu bëre mun na la andil feebar yu bëre te yi nga xam ne moom la ñuy gën a jànkonteel moom mooy méttitu yax yi mooy euh, da ngeen gis suñu jigéen yi du ma wax sax suñu yaay yi léegi avant ce sont les avant yaay yi ñoom ñoo ko doon jàmbat mais léegi jigéen yëpp xale yu ndaw yi sax ah da ngay jékki-jékki ñu ne la sama yax yi damay metti samay genoux yi damay metti wala tànk yi ci suuf donc dafay metti donc euh, loolu euh, mun na ànd ak euh, mu andi leen ay problème yu ñuy wax ay problème cardiovasculaire te ci problème cardiovasculaire yi mun nañu am problème mu xol ah mun nañu am AVC te mun na la andil tamit beneen Euh, feebar boo xam ne on en a parlé euh, moom mooy jabet bi jabet bi ak euh, li mu ëmb yëpp ak li mu donc àndal yëpp yaram bi nag bu fekkee ëpp na su xawee jéggi dayoo. feebar bi euh, fee feebar la ah feebar la te feebar bi su duggee nit ki mun na faj boppam comme euh, mun na dem si benn spécialiste mu koy suivre euh, am fu muy jaar ak moom ba nga xam ne que ne feebar bi mun na dellu ginnaaw si prise en charge bi donc. Euh, mun nañu démarrer par régime bi dañuy wax ne que régime bi benn régime hypocalorique la donc régime boo xam ne suukar bi dafay xaw a wàññeeku ah dañuy wàññi lépp loo xam ne dafa nekk suukar wàññi lépp loo xam ne dafa euh, xaw a niin euh, wala lépp loo xam ne dafa am graisse léegi dafa xew ah nit ñi tàmm nañu dugg ci yenn restaurant yi mais surtout fast food xale yi léegi koo si waxal rek pizza hamburger shawarma pizza hamburger shawarma alors que euh, loolu moom euh, loraange rek ñun nañ ci gis donc euh, mun nañu def plaisir sax seen bopp nit ñi mais. une fois en passant mais ngeen dëkk si pizza hamburger shawarma euh, da ngeen di lool seen bopp donc euh, ñu digal leen wàññi li nga xam ne lépp loo xam ne dafay andi suukar wala dafay indi graisse bu boobaa euh, njëriñ rek ngeen ci gis léegi li nga xam ne moom mooy fruit ak légumes fruit ak légumes ñoom ñoo war a gën nekk seen euh, seen alimentation euh, su ñu waxee fruit rek nit ñi tàmm nañu wax ne que ne euh, yëfu tubaab la non y a des fruits tropicaux am na yoo xam ne mi ngi fii am na fi fruits yu bëri mi ngi fii légumes yi mi ngi fii en donc te c'est à la portée de tout le monde c'est la portée de tout le monde donc euh, bu fekkee da ngeen tàmmal seen bopp euh, entre trois ak cinq euh, fruits et légumes par jour bu boobaa loolu tamit dina leen dimbali torop donc pour seen faj bi boole ci loolu ndox ndox da ngeen ko def seen xarit entre un virgule cinq litre ba deux litres ah au minimum par jour bu fekkee mun nga naan ba trois litres par jour am na ñoo xam ne facilement mun nañ la naan euh, benn trois litres par jour bu boobaa tamit euh, loolu dafa nekk loo xam ne donc euh, dafa gën ci yow activité sportive wax nañ ko la dernière fois bu fekkee mun ngeen am entre vingt et trente minutes de marche marche rapide mooy ngeen dox doxu waaxu ba nga xam ne que ne di ngeen xaw ñax ngeen def ko chaque jour soo leen ko defee cinq jours ci semaine bi loolu tamit dina nekk loo xam ne euh, dina leen euh, dimbali pour ngeen mun a euh, contrer ay feebar genre feebar lu ñuy wax les maladies cardiovasculaires mooy feebar yi nga xam ne dafay laal xol bi di laal sidit yi Euh, bu boobaa tamit euh, yenn complication yi complication yi euh, wax naa ko ba noppi complication yi tamit di ngeen ko mun a moytu pour ñenn ñi ñi nga xam ne am nañu tuuti les moyens mun nañu def ce qu'on appelle une psychothérapie de de de de comportement c'est-à-dire xool ak benn psychologue koo xam ne daf leen di encourager donc si seen régime ak pour ñu def euh, seen euh, seen euh, seen sport ah kooku daf leen di encourager teg leen si yoon bi won leen lan moo gën par rapport à ça loolu suñ ko defee tamit dina baax si yéen am na traitement boo xam ne c'est médicamenteux soo jëlee garab yi ay doom la yoo xam ne soo ko jëlee mun na la euh, perdre poids bon je vais pas insister sur ça euh, bon xam na ñoo xam ne dañ dinañ la ne garab yi baax na am na yenn ñoo xam ne dinañ la ne garab yi euh, amul effet barewul ay études yoo xam ne donc yoo xam ne dafay firnde loolu loolu yëpp par rapport donc euh, ak garab yooyu Euh, bu fekkee nag dem nañu bëgg gis ne que ne seen euh, traitement li ñu la wax yëpp nga def yaa ngi koy def te gisuñu ci njëriñ si bon pas au Sénégal mais am na ay dëkk yoo xam ne genre Maroc wala Tunisie euh, mun nañu def ce qu'on appelle un traitement chirurgical mu nekk ay opération yoo xam ne dañ koy def si estomac bi ak yooyu wala. pour euh, lu ñuy wax ay liposuction donc loolu dina dimbali nit ki pour euh, euh, wàññi graisse yi donc wàññi yaram bi donc tey loolu la ñu amoon pour wax leen si sur les effets sur sur sur obésité sur yaram bu ëpp donc dans les mercredis donc du docteur Konaté di remercier suñu technicien suñu caméraman euh, toujours actif offensif Abdel et puis euh, di remercier également euh, Ndofène euh, sama partenaire yi donc euh, euh, di remercier également di remercier personnelu clinique médicale Kër Marie donc euh, un personnel dévoué ay jàmbaar dëgg-dëgg donc euh, si liggéey bu rafet euh, bi ñuy liggéey donc par rapport à la prise en charge donc des malades de la clinique merci cher auditeurs merci à tous et à la prochaine merci ay partenaire am Saloum Dieda World Trading Clinique Keur Marie International Travel ñoo leen di may seen émission wér gu les mercredis de docteur Konaté